salaamaaleykum beaucoup téléspectateurs ici à ci TV ak Ovision tey ñëw ak yéen ci seen beneen numéro bu découverte tey ñu ngi nii ci benn tool bu yaatu macha allah ñu war fi ñëw pour découvrir li ñuy wax culture fourragère ñu am mbégte di dalalaat euh, suñu tonton suñu président Aboukan. vraiment mu nekk koo xam ni kenn ko ci milieu bi ci milieu élevage moi président de la fédération nationale des acteurs de la filière ovine muy FENAFO mu war vraiment expliquer ñu tey lu jëm ci culture fourragère lu jëm ci ensilage de sorgho bi mu nar def donc euh, ñu ñëw ci toolam fii pour am ci waxtaan yu yaatu yu détails yu yaatu culture fourragère nekk loo xam ne nag fi mu nekk nii euh, éleveurs yi jël nañ ko Sénégal aussi boo waxee ñu bëri tey ngooñ bi dafa cher donc culture fourragère ñëw na pour révolutionner euh, élevage du Sénégal ñëw na tey pour dimbali agriculteurs yi ñëw jëm ci boor boobu pour mën vraiment am ouverture bu yaatu ci ci milieu bi donc ñu dugg waxtaan ak suñu président avocat A plus Inch'Allah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw président. alors. na nga lay ziar comment ça va. ça va bien. macha allah ça va alhamdulilah. naka naaj bi. ah naaj waa ngi nii rek. ñu toll rek. <laughs> macha allah song ci naaj bi. waaw ah, yàlla baax na. vraiment ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, di la di la remercier aussi ci dalal bi. jaajëf. vraiment mu nekk lu ñuy rafetlu lool di la recevoir ci découverte. Uh-huh. vraiment mu doon lu ama am solo. Uh-huh. ñu premier numéro nit ñi seetaan nañ ko vraiment ils avaient apprécié. Uh-huh. donc euh, ñu lay remercier waat ci dalal bi. tey ñu ñëw fekk la ci tool bi. ñu bàyyi la rek nga nuyoo ko ñi lay seetaan. waaw Diaga jërëjëf avant tout maa ngi lay gërëm di lay sant si sa teewaay fii. Mhm. Euh, di nuyu nag euh, bépp téléspectateur bu ñuy seetaan rawatina nag suñu mbokku éleveur euh, Sénégal yëpp ak sous région bi ak diaspora bi. Mhm. merci tey ñu ñëw découvrir beneen facette bu président Abou kan. président Abou xam nañ ko ci élevage bi ci xar yi ci ci nag yi tey ñu ñëw découvrir président Abou Kane entrepreneur agricole on peut on peut l'appeler comme ça. tay lu waral tay nga ñëw ci entrepreneuriat ci ci agriculture wa mais ça rentre toujours dans le cadre de de la rentabilité de de nos bergeries. Mhm. Euh, parce que euh liggéey si euh, birum élevage euh, bi nga xamni légui danaka des dafa mel comme commerce parce que. Nous euh, investir bu rentabiliser l'investissement investissement. Mhm. et qui rentabiliser investissement c'est amoindrir les charges. les mhm. charges euh, aliments charges Mhm. Euh, te dañ koy jënd donc euh, pour wàññi charge yooyu nag ñu ne mhm. bon au moins li nga xam ne mënoon nañ ko suñu bopp dañ ko defal mhm. suñu bopp ñu bañ ko jënd euh, looloo tax nag suñu xel dem si culture fourragère yi ñu ne au moins nañ jublu si culture fourragère yi jéem a béy au moins une partie si li ñu soxla si pour suñu jur gi loolu moo ñu indi fii ñu ñëw aménager fii Euh, di fi bay euh, pour defar ensilage. Mhm. bi nga xamni mën nañ ko jox suñu jori suñu xari suñu nagui ak yoy ok mën nañ doxale découvrir tol bi. ak bien sûr waaw c'est avec plaisir. mais tay tay président lan mo la gëna a ñaax pour nga pour nga da nga amuru bay wala dañ la da nga nan nga def tay pour pour initier wu ci li da nga dem def ay euh, séminaire wala formation. tay wala ministère de l'agriculture techniquement ils t'ont accompagné wala comment ça s'est passé non lii bon comme ni ma wax rek man bon xam nga bergerie galo ya ko xam. Mhm. xam ni bon nous si professionnalisme la dox. Mhm. waaw depuis biñu créé bergerie bi depuis en 99, mhm. si professionnalisme lañuy dox. donc depuis bobu la ñuy commencé li ñu def moy jéem formaliser Biñ ko formaliser def ko entreprise euh, so so xasse nak nek entreprise euh, lepp li ngay def da koy xool. ah say charge da nga koy xool ces, euh, ces recettes aussi da nga koy xool. lépp looy mun a def pour yokk ces recettes da nga koy def lépp loo mun def. pour wàññi ces charges tamit. da koy def non ngay meuna a optimiser ces euh, say ces produits. Mhm. ces say profit. ah donc euh, si si si lolu lañuy dox ba mhm. ba xalat ni. Mhm. pour vraiment wàññi sur suñu coût de revient bi. il faut inéluctablement mhm. ñu ñu béy waaw donc euh, lolu moo ñu orienté euh, ñu xalat am euh, tol xalat aussi investir si mbéy bi ah, donc lolu tax tamit si suñu investir si mbéy bi tamit dañu xol mbéy bi nga xamni mo gëna gën a adapté si élevage bi muy nak culture fourragère mhm. parce que gis nañ ni ak culture fourragère suñ ko défé vraiment euh dinañ économiser lu bari mhm. té bu woba suñu xar yi am wala suñu nag yi wala suñu produits yi dérivé de notre élevage Mhm. dina compétitif daal. waaw maintenant nak dañ ko def pour le moment sur fond fond propre. voilà dañ ko dañ ko def sur fond propre. kon ministère de l'agriculture amul ben accompagnement buñ la buñ la kii wala pas pas pour le moment pas pour le moment euh yakar nañ nag euh, dina ñëw. parce que man dama gëm ni euh sooy bëggoon ndimbal aussi exactement mhm. ah, na am lo commencé gis ko nga sollicité man ah, eh. même association yi may aussi ma aussi non la euh, euh, philosophie mhm. hmm? nit euh, nga def voilà jappal ah, aussi chaque fois il faut aider les gens Euh, dañu au moins sacrifier nañu jël nañu seen dara liggéey feneen ñoo investir si secteur bi. ñooñu soo leen poussé rek ñu takk. waaw mais euh, euh, defuloo dara ba pare bëgg a tàllal sa loxo loolu man gëmuma loolu. moo tax ma ne bon naa amorcé lii ba pare su ma ko amorcé kii bon maintenant ñu ngi gëstu waa ministère de l'élevage. Mhm. ñu ngi gëstu waa ministère de l'agriculture. pour que ñu jàppale ñu parce que tey jii. agriculture bi tamit même euh, suñu défé culture fourragère xéna dinañu soulager touti mais culture fourragère bi sax euh, bala mu gëna rentable encore hein, mhm. ah, tay ji ñu mënon am euh, ñu am accès

tey di soo bëggee am sa tracteur bop tamit non seulement dafa cher mais da ngay fay ay taxi ay yooyu yëpp donc tay ji loolu eh, il faut euh, fofu le euh, état bi meun ñu jappalé mm-hmm. ah eh, su su su weesoo loolu tamit bon eh, ñun souvent euh, li c'est c'est très lourd ça demande beaucoup de fonds de roulement beaucoup de charges voilà donc loolu yëpp yaakaar ni peut-être su appui état bi su su ñëwee si par rapport à loolu mm-hmm. ñun dinañu mën sax en dehors de dundal suñu jurgi L'idée dinañ que vous commercialiser. Ah, en plus d'être éleveur on sera véritablement des entrepreneurs fourragers. Mhm. Ah, parce que dit, le ministère de l'élevage nous avons fait la promotion de l'entrepreneuriat fourragé mhm. ah, je pense que nous ce war nañu gëstu suñu pour que nous nous appelions parce que nous avons une expérience nous avons une affaire il suffit que nous jot investir. il suffit que nous appelions tout pour que vraiment nous nous ñu mun projet parce que ça ça fait la promotion de l'élevage, ça fait la promotion de l'agriculture mhm. et ça fait la promotion euh, évidemment de de parce que ku gis fii ni mu toll xam ni vraiment du benn nit wala ñaari nit ñoo koy mën exploiter mhm. tey ñu gis ni lii ensilage de sorgho la mhm. tey la moo la moo tax nga préféré def sorgho parce que on voit parfois l'ensilage de maïs mhm. euh, wala wala luzerne bi sax pourquoi tey mélanger woo luzerne ak ensilage de sorgho wala de maïs euh, waaw d' abord d' abord xam nga sooy mbay da ngay étudier euh, soo demee li ngay njëkk a ut mooy tool mooy bërëb soo amee tool bi tamit da ngay so so fa naree bay tamit li nga fa bëgg bay da ngay xol euh souf ci ak environnement bi lan mo fa gëna adapté wu. Euh, fii Mbodiène lañ euh sol bi c'est un sol argileux hein et gis nañ ni fi fii mbayu euh, euh, dugub wala mboq mo gëna a adapté fii ah la preuve lool mooy sen cosaan mm. fi wa dëkk bi hein donc bi ñu xoolee tamit gis ni ci fourrage yi bëgg def yépp boobu moo fi gën adapté parce que fourrage aussi. Mhm. il y a deux deux familles. hein ah, lu ñuy wax euh, d' la famille des graminées. hein mhm. am aussi euh, beneen famille. Euh, bi nga xamni bu ñuy naan hein. graminées yi so xolé pratiquement nous euh, euh, avons ñoo gën riche d'ailleurs en énergie. riche en protéines, mais l'énergie est très forte. nous fort. yooyu en général les céréales ah. par exemple le euh, bi bi ah. et même le bi. ah maral falfa bi. yooyu yëpp famille graminée bi. les graminées légumineux graminée yi ñoo adapté sol sol bi ah. maintenant à côté de loolu am na. beneen famille bi ñu naan légumineuse légumineuse yi nag mooy par exemple lu mel ni ay mbéyum gerte uh-huh. ah lu mel ni euh, par exemple na boobu nga tudd sànq ah yooyu yëpp ay légumineuse la ah, lu mel ni ay ñebbe fourragers yëpp ay légumineuse la uh-huh. mais yooyu tey ji si sol joor lu gën a adapté wala voilà donc ñun dañu xool d' abord sol bi lan la gën a adapté wu ñu orienté wu ñu orienté wu foofu ah loolu muy benn uh-huh. beneen bi aussi si biir légumineux si biir euh, graminés yi si euh, yooyu. Ah. xam nga ko wax naa la am na ay euh, luzerne. am na ay ah, am na pardon am na maral falfa bi am na. panicum bi am na moo xaw a mel ni tige soo xoolee ñoom ñoo nuroo bind sax maral falfa ak kii bi presque même tige bi la ñoo xaw nuroo ah, donc yooyu si yooyu tamit. on fait le choix

Téji sorgho bi mo ëpp appétence maïs bi. ok so tagué ensilage maïs ba teg ensilage sorgho xari sorgho bi lañu tam ok voilà donc loolu nak aussi comme bo mo ëpp appétence mom la xari gëna bëgg. Ah, ñu ne ma tourné fofu. foofu loolu tax ma spécialisé wu uh-huh. parce que premièrement euh, sol bi moo gën adapté. donc pour dans un souci de de rentabilité. deuxièmement euh, euh jii baax si nagui, baxna si xari et troisièmement mon appétence par rapport à au au au mouton. au mouton loolu euh, orienté le choix bi daal. ok mais est-ce que tu as commercialisé Comment ko commercialiser commencé Ou commercialiser wala c'est juste pour dessiner c'est destiné euh, famille. non non non commencé gu commercialiser. Mhm. bon euh, def Bon, j'ai commencé en en 2020, mille vingt. Uh-huh. pour juste pour sumay c'était la première année. 2021, aussi ma def quantité bu xaw a mais bon, c'est juste pour euh, notre propre consommation. bon Rennes, comme def une euh, surface bu xaw mhm. autour de 18 hectares. euh, si tout se passe bien ñu peut être euh, dinañu une partie aussi ce sera destiné à la commercialisation. donc Rennes, on va commencer la commercialisation inshallah inshallah donc tey ensilage ban je la am lan yan ferñeent am remplacer un bi et la donc leneen lii par rapport ak aliment bi la par rapport ak aliment bi tamit culture fourrage bi day tax nga économiser aliment bi donc foo doon joxe par exemple un kilo bu fekkee yaa ngi joxe fourrage bi mun nga joxe demi kilo. donc da économiser aliment bi te xam nañu aliment euh, concentré nous mu ah. cher donc à tout point de vue euh, fourrage bi euh, moo gën à tout point de vue Hein? donc loolu lu am solo la li nga xam ni vraiment damay ñaax vraiment éleveur, yi ñu ñu ñu ñu jublu mm-hmm. parce que dafa doon loo xam ni c'est pas compliqué te tey ji bay ñax cherul mm-hmm. bu doon loo xam sax dafa cher mais bay jarul engrais non jarul engrais jarul engrais jarul engrais jarul engrais ndox la soxla nga am nga am say terre. Mhm. voilà balaa nga koy def nga labourer nak sa sa tol bu mu jaar yoon. voilà donc mais bu lolu jarul amna détail yu bari jaru donc c'est c'est c'est pas une culture compliquée c'est moins de risque voilà y a pas y a pas y y a <laughs> je dis je dirais même y a pas y a pas de risque risque bi c'est c'est c'est minime quoi voilà ok

te loolu si benn 500 mètres carrés même 500 mètres carrés ça bëri na pour dire que affaire nous nu mu si quand même. pour dire que nous mu sakkanee maintenant au delà euh, de dundal say jur ak yooyu tey jii euh, c'est c'est euh, fourrage bi c'est c'est c'est devenu même c'est un business. Si. ngi wax tout à l'heure entrepreneur. entrepreneuriat fourrager. tey jii dafa war a am l'émergence d'entrepreneurs fourragers. Hmm. ñoo xam ne tey jii lan mooy nekk seen liggéey bay ñax rek. tey ni ni nit yi di béyee soble wala bay pomme de terre. nga xam ne dafa bëri ay risque dafa bëri ay coût mhm. di di wala béy ceeb wala leneen tey jii noonu la ñu war a moyen béyee ñax di koy jaay dëgg la parce que am na période bi ñuy toll bi nga xam ne si Sénégal foo dem du am ñax dëgg la am période booy toll même ñaxu ceeb yi botu botu ceeb yi takk ceeb yi nga xam ni ah ñax boobu nga xam ni c'est c'est pauvre en vitamine en vitamine même boobu tey am am na période boo xam ne doo ko gis dëgg la soo ko gisee tamit ay 1000 francs ngay jëndee la botte dëgg la donc période loolu soo ça veut dire que c'est un business rentable. yow période yooyu su tombee nga ngay ngay récolter sa ñax mais lu ne nga si am. te du yàqu. charge. donc loolu na si ñu ci la mais président souligné na lu am solo. Mhm. Lo xam ne vraiment macha allah parce que man li ngay wax nii gis naa benn entreprise canadienne boo xam ne loolu rek mooy liggéeyam. mais bien sûr des milliers d' hectares. il faut que luzerne exposer sécher après envoyer. mais mais ça qui est désolant. Mhm. tey actuellement sur le marché. ñii di jaay euh, euh, ñii di jaay euh, ñax bi mhm. actuellement yëpp c'est des entreprises étrangères. am na si benn man bu ma xam boo xam ni au départ ñoom dañ leen jox des milliers d' hectares dans le nord au départ ñoom dañu ñëwoon beneen projet la ñu amoon ah projet boo xam ni affaire diw la mais finalement léegi luzerne rek la ñuy def di di ñu koy jaay tey ji luzerne bi ñuy jaay nii actuellement ni ñu ngi koy jaay kilo bi deux cent francs. xam naa fi amoon fi temps à mon évitant, les ornevis, si nous avons commencé et tout, les fait que nous watch, les ornevis, nous avons donné 250 francs à l'incolon de kilo ah, à travers la nipel. Nous avons commencé, nous avons watch, nous avons watch 260 francs le kilo. Taille, nous avons encore 200 ah, francs le kilo. C'est une aberration. Alors que nous avons payé normalement, nous le payé plus de 35 francs. Nous avons payé 200 francs le kilo c'est une aberration tey jii ñax bi ñax wala ngogn mo gën cher euh, euh, mo gën cher euh, comment dire je moo cher. non non non mo gën cher ceeb. ceeb bu lek lekk ceeb lek mo parce que léegi moo gën cher ceeb bu lek ouais ouais. ouais ça c'est c'est une aberration moo tax tey jii may ñaax vraiment nit yi nañ ci jublu ah nañ ci jublu vraiment bay pour jur gi bay aussi pour jaay. Mhm. bu wa suñ ko euh prix ñax bi du cher prix ngogn bi tamit dina wacc parce que tay jii so gisee ngogn cher muy jar 6000 francs le sac loo xam normalement 1000 francs wala 1500 la waroon jar. c' parce que tout simplement amul amul dara. amul lu fi nek amul dara amul dara lu ko concurrencer. amul lu ko concurrencer. c' ça mais tey jii éleveurs yi nga xam dañuy consommer ah euh, plus de 100 euh, sacs par mois dañ leen di compter par centaine voire des milliers. dëgg la mais ñooñu tey jii dañ wara bay béy. ñooñu dañu war parce que c'est c'est c'est c'est inadmissible un éleveur qui fait plus de 1000 sacs ngooñ par an di di jënd. alors qu'on a possibilité de Parce que 1007 ngognes par an, c'est 6 millions. Avec la moitié, de monde de non seulement des mais d'une une partie. C'est vrai que na l'a dit, l'a dit, l'a dit, vraiment ligué. Mm-hmm. Est-ce que au niveau de, de FENAFO, mm-hmm. prévoir un séminaire ou atelier de culture fourragère bi nga xam ne tey di ngeen initier yeneen élève yeneen éleveurs yi. parce mm-hmm. que ñu ay terre pour pour béy wala xanaa foo opté am ay terre. bien bien sûr À ma fédération bi. Mhm. Euh, ñun suñu objectif bu dites bu la promotion de de de notre filière. ok ah euh, nañu naka la euh, produire ñu mun si mhm. ah donc loolu nag soo bëggee produire nga génn si lu moi nga xam ko d'abord? Mhm. Ah, donc nous dañuy insister sur la formation. ah moi à chaque fois presque tous les mois dañuy def ay journées scientifiques scientifique, koy ay nag ay régions yi récemment on l'a fait à Rufisque hein. donc euh, euh, des régions où dem dañuy jël ay thèmes waxtaan si ah hein. léeg à plusieurs reprises jot nañ waxtaan si si si culture fourragère ak yeneen thèmes un hein. donc loolu c'est pour d'abord wax la euh, culture fourragère bi mhm. leneen li aussi nous ngi si tànku créer benn coopérative mhm. au niveau national pour permettre aux éleveurs pour leur permettre d'accéder aux terres il faut que l'accès à la terre, c'est très important pour les, pour les, pour les, pour les éleveurs. Donc avec les coopératives, euh, nous pouvons faciliter l'accès à la terre aux, aux éleveurs. Mhm. En ce moment-là, nous pouvons faire ah mën a béy lu ñuy dundalee seen jur loolu aussi bokk na si euh, objectifu fédération bima, bima, bima, bima bi ma donc euh, en quelque sorte c'est c'est ça quoi ñun lépp lu ñuy def pour alléger souffrance éleveurs yi si loolu la ñuy dox lépp lu ñuy def pour def promotion suñu produit aussi si loolu la ñuy dox ensilage la. ensilage bi lan la da ngay jël ñax bi ak dugub bi boole ko. broyer ko Soko broyer après euh comme ni nga ko gis ni machine bi. bi ensileuse la tudde. ensileuse bi day dag en même temps di broyer. su dagué broyer sotti ko ci camion bi. gis ngeen dañ ko gisee ni. su ko sottee ci camion bi après camion bi ñëw sotti ci ko su ko sottee fi ñu dajalé ko dajalé ko bu mu ba mu su demee ba si ba ñu paree nag ba ñu sotti yëpp fii après day tracteur bi day ñëw. bi ñëwee pelle bi quoi. dañuy indi benn pelle su ñëwee nag mu compacté ko. mooy pelle mécanique yi. waaw su pelle mécanique day ñëw jaar si kawam yéeg si kawam compacté ko. su ko compacté nag pour wàññi volume bi et puis euh, mu gën a compact pour mu gën a mën a. fermenté si biir su compacté ba pare nag ñu jël beneen bâche nag lal si kawam. muur ko ko muur ko nag tëj ko hermétiquement. ok suñ ko tëjee hermétiquement dara du dugg. suñ ko tëjee hermétiquement bàyyi ko pendant 40 jours nag. ok 40 jours yi ci lay fermenté. ok su ñu ko ba 40 jour bi nag à partir de 41e jour bi boobu la ñu commencé consommé euh, génne ko. génne ko ok mu consommé boobu day fekk mu fermenté day fekk mu ñor xomb et day am xet bu neex. ok waaw day am xet bu neex. waaw xet bi parce que gars yi naan xet bi sax est-ce que du xetu sàngara. waaw xet bi nag dafa niroog euh, xetu sàngara parce que xam nga aussi daanaka euh, céréales yu ñuy fermenté la. waaw le vin là c'est c'est du céréale euh, fermenté donc euh, moom euh, bii c'est la même chose céréale bi fermenté sauf que bi, donc c'est si yokk ñax bi voilà donc moi, tax à peu près le même goût mais bi quand même moi tax goût sangara te moo ko gën a barkeel tamit eh, en tout cas quand même Mais <laughs> non noonu rek <laughs> mais sinon euh, côté commercialisation comment comment ça va se passer pour les détails bien sûr déjà déjà bon nous, on a un réseau de distribution d'aliments de bétail mhm. bon c'est ce même réseau qu'on va utiliser et puis bon comme aussi xam nañu bu baax am euh, canal qui nous mën a informer Il euh, y a des centaines de milliers de d'éleveurs qui nous suivent mhm. donc je joxee information yi rek déjà bi ma commencé semer rek nit yi commencé nañu intéressé wu naa ma abu est ce que di nga jaay sooy jaay kañ ngay jaay mhm. instant bi saa su ne damay nit daf pare nañu saa yoo buggee jaay on est preneur Eh, tey ji soo xoolee marché bi nu mu doxee ni eh, lii loo si munta produit da nga koy jaay instant bi yow koy yaay bañ mais loo si munta produit da nga koy da nga koy da nga koy jaay parce que ah. bëriwul voilà te ngooñ bi dafa cher te lii par rapport ak ngooñ bi dafa compétitif macha allah voilà mais tey par exemple pour les pour les pour les revendeurs yow est-ce que di nga jaay comme yenn distributeurs yi nga xam dañuy jënd tey pour jaayaat ñu soxla yenn loo mais bien sûr man su ma décidé ko c'est peut-être je le ferai pas au détail. ok xool quelques distributeurs rek ma jox leen ko ñoom ñu ñu ko détail. Uh-huh. voilà donc c'est comme ça que ça se fera quoi. d'accord mm-hmm. kon message bi leer na ñu ngi appel. au ministère de l'élevage au ministère de la surtout au ministère de l'agriculture suñu papa Aly Ngouille Ndiaye ñu on est un grand éleveur aussi. un passionné de l'élevage <laughs> parce que oh, euh, dans uh-huh. j'ai eu l'occasion de visiter sa ferme journée nationale élevage d'ao comme le commissaire Salombi j'ai eu l'occasion de visiter sa ferme dans le cadre de la sélection d'animaux uh-huh. j'ai vu quand même qu'il a beaucoup investi et qu'il fait de belles choses. Uh-huh. et c'est quelqu'un qui a compris quand même. il hein, dire, quoi et qui donne l'exemple aussi. parce que l'homme mooy njëriñ bi nit ki bon su la idée dangay def nit yi gis ko euh, copier si yow. c'est ça man en ah, ah, man dama gëm loolu man euh, la loolu lu ñu naan pédagogie par l'exemple. man noonu laay doxalee. Mhm. man suma biir élevage ba ba li may def nii noonu laay noonu laay doxee. te je suis le président de la filière ovine mhm. ah, pour moi, la meilleure manière euh, de, faire, c'est de montrer le bon chemin. Moi, je suis def ko. Mhm. Parce que quand j'ai première année, si je suis culture fourragère, culture fourragère, ça, ça, ça, les faisait, ça les faisait rigoler. Ah, mais depuis un certain temps, euh, les gens, quand ont commencé à euh, utiliser, ils commencé à voir ils ont commencé à intéresser. Mais ils intéressés aussi, hein, euh, parce que sénégalais yi dafa bëgg euh, lu gën a yomb rek la bëgg c'est-à-dire sénégalais bi mu jël xaalisam jënd moo gën a yomb si moom ah, dem dem dem bay tey ji mu ñëw jënd jël xaalisam jënd kilo 1000 francs moo gën moo ko gënal mu dem bay kilo bu nga xam daf koy diké 200 francs d'accord donc euh, lolu nak euh, il faut ñu ñu ñu ñu ñu départir aussi mentalité bon ah vraiment motax aussi encore une fois mhm. euh, di ñaax nit yi pour ñu ñu jublu ci ti té ñu xol nit yi di def lu bax ñu mhm. copier ci ñom mhm. pour que élevage jëm kanam quoi parce que non rek la mëna tay ji la promotion de l'élevage au Sénégal passe forcément par les privés hein tay ji élevage Sénégal privés nous les développer comme ça a été le cas en France au Brésil et ailleurs ah, les privés nous avons ah, les champions les privés quand je dis champions moi c'est des gens qui ont investi leur argent et qui ont investi toute leur force physique même ah, dans l'élevage mm-hmm. donc xam nga jël c'est parce que

wala luzerne diko ko sénégalais hmm. donc champion yi ngay wax non war nañ leen mëna élargir jox leen ko ba nga xam ne ñoom it dinañ ci mëna gis seen bu baax hmm. ni yombalé étranger bi terre yi ñu yombalé ko sénégalais bi non exactement parce que le sénégalais jeune yi melni man bëgg nañ ay bay bëgg nañ tool bëgg nañ yar hmm. mais tay l'espace fait défaut donc lolu ñu ngi ci lancer appel bu baax pour pour pour pour pour li ni mel léegi président tay ñu ñu bo amone message boy lancé tay le ministre de l'agriculture la nga koy wax ben, le message que je lance au ministre de l'Agriculture et même au ministre de l'Élevage, moi, comme encore une fois, nous appelons euh, les privés, hein, nous appelons les promoteurs privés, les entrepreneurs privés. Et effectivement, euh, initier euh, l'entrepreneuriat fourragé, il faut que nous appelions nous concrétiser. Mmh. Hein. Donc, euh, une initiative parce que bon, man, le euh, ministre de l'élevage, on discute souvent et je sais que euh, il a de bonnes idées là-dessus il est beaucoup vraiment d'appeler les promoteurs privés euh, il veut faire la promotion de de de champions de l'élevage c'est-à-dire des gens qui vont investir dans les fermes qui vont produire par milliers de têtes afin qu'on puisse atteindre l'autosuffisance en mouton. Parce que l'autosuffisance en mouton, non, l'on atteindre. Mhm. Ce n'est pas en produisant 10 moutons, 20 moutons, 30 moutons. C'est en produisant par milliers, voire des centaines, de, euh, des dizaines de milliers. Vous ça en bouche. Parce qu'en bouche, euh, euh, Je parle de production. Je parle de production. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui investissent dans les fermes. Ah, il y a des, des milliers de femelles, voilà, des centaines de femelles avec des géniteurs là, des géniteurs yi nga de race mhm. ah, pour produire des agneaux destinés à la viande des agneaux euh, des moutons destinés à la tabaski Sinon, le rek lañu atteindre autosuffisance euh, en en viande ou en mouton mhm. ah, parce que euh, c'est une production à outrance ah, donc euh, il a compris ça et je pense qu'à travers le fond stable à travers yenen euh, am na si initiative man xam naa si parce que on en discute souvent il euh, ñaan rek yàlla yàggale euh, yéene boobu. Mhm. ñaan aussi ñoom ñu fexe tous les projets yi nekk aussi bien à l'agriculture que l'élevage élevage ah nañu jublu si si si mbirum culture fourragère parce que moi je suis au a mën mhm. ah, parce que soo soo su ñu lolo il y aura des entrepreneurs fourragers nga qui vont se faire beaucoup de millions qui vont créer des emplois mhm. mais dina élevage aussi suqaliku parce que élevage bi actuellement li ñu soxla sonal coût de revient mhm. les coûts de revient sont tellement élevés que nous mhm. avons ils ont tendance à laisser tomber Nous, ah, ñu ñi nga ne nañ si dugg dañuy xaw hésiter mais suñu vous nak ba def promotion culture frangérie, yi ba euh, coût yi xaw amoindrir en ce moment-là, je pense que dina motiver éleveurs yi nga xamni investir nañ ba paré, dina motiver tamit les potentiels investisseurs. ok donc euh, vraiment ñu lay remercier donc message bi ñu doon lancé rek moy lolu que légui éleveurs yi vraiment ñu ngi léni fexé ñu tendre tey ci ci ci al euh, aux cultures fourragères ñu jéma fexé ñu jéma fexé xol xool nu ñu mën a euh, ay terre jéma fexé ñu

éleveurs yu mag yi sama mbokk sama xarit Siré Diakité mon frère borom turandoo yi xam naa ni moom bu ko seetaanee xam naa ni daw dina daw uti tool <laughs> donc vraiment macha allah président sa dernier mot lan la comme ça ñu clôturer. soo soo soo waxee Siré Diakité man ma wax Mansour Mbodj. parce que waaw <laughs> Pa di si profiter quand di koy. Eh. def un coucou. Eh. Euh, parce que suñu mag ju baax la. Mm. te référence la si ñun. Euh, ñun bi ñuy door euh, moo nekkoon suñu idole dañ doon ne mais kan la mel ni Pa bii. ah donc. Euh, mu inspiré ñu bu baax. Euh, donc euh, tay jii bon mu na wax euh toll fi ñu toll fii si élevage inspiration bi ñu amone ci mom mhm. euh mo motax ñu egg fii. en même temps di remercier mon maître aussi docteur Diallo. Mhm. bi nga xamni aussi ci moo tek teg yoon. et di remercier éleveurs yëpp ah yi nga xamni vraiment ñoma jital mhm. ah, parce que mënu ma leen fay. Ah, euh éleveur Sénégal bëgg nañ ma lool fonk nañ ma lool. té wolu nañ ma lool. Euh, di ñaan yàlla rek yàlla jàppale ma ba nga xam ni euh, kóolute bi bi ñu am si man euh, mu mun a répondre à leurs attentes. incha allah mm-hmm. yàlla na yàlla def. donc bi moo nekkoon seen dernier numéro ci année deux mille vingt deux bi donc incha allah peut-être yeneen yi ngi ñëw ci kanam incha allah yàlla yàlla yombal ñuy def ay découvertes yu bëri ci bërëb yu bëri bërëb yu ne donc président ñu ngi lay remercier bu baax. jaajëfate merci beaucoup et massa si tàngaay bi nag. non parce que ñun ay hommes de terrain lañ. <laughs> incha allah loolu loolu kii wuñu. jaajëf donc à la prochaine incha allah